na ñëpp jërëjëf Momo jërëjëf Mayang Loum suñ production nag mooy woote le 19 janvier muy dimanche prochain ci terrain Gaal gi mu teg 2 millions 500 muy cinquième édition de la Pro Ancien Fall ñuy ñaan mbokk yi ñëpp nag ñu mu doon dimanche prochain mu doon foofu ci terrain Gaal maa ngi nañu poussé waay. Fara Boy Faye. Fara la Boy Faye. Fara à gauche wala à oh, oh, oh. nañu. Fara Boy Faye Fara leen wan ginnaaw. Boy Faye muy. drapeau Ba. association des promoteurs wañ na ko da koo a war wuute. Boy Faye bañ na leen Fallou sa mbër ma. Fallou Ndiaye maa ngi Mor bu parcelle sa mbër maa la nekkoon. Ah. Maroc la nekkoon. xoolal muy maye baaxul Boy Faye Maroc la la nekkoon. Fara nekkoon États-Unis. a Maroc il biram. Ah, ah waaye mbay ak ñun. tey du yomb. eh waay. waaw waaw béykat loolu. yaa ngi fi daa woyof naan. ndeysaan. ndeysaan. Fall filmal waay. Fall filmal. way bi boo ko déggee sa xel dem ci final. mooy lambu jaa ngay jeex. ay eh, mbokki Leewtoo. tempo la neex waay. drapeau Matar Ba. jar na ko. eh, eh lu mu sonn def. Boy Faye bañ na. Eh, waa mais Boy Faye da koy daan wala. est-ce que tey dina yomb. waaw mais Franc mi moom. Franc daa jógee États-Unis jël 10 millions. waaw booy fay jógee Maroc bu nga jël 5 millions. waaw 6 millions la léegi. booy fay ak Franc. juróom benn million. booy fay tey dafa décidé. waaw Assane Ndiaye day caméra. ah gis nga Bawol TV la Bawol TV la Assane Ndiaye. Assane Ndiaye dig na kiin waa Assane fotim Babacar o a pogum loolu mooy lan buum tekkil ma ko Assane daa ñibi Bawol wax nga dëgg moom léegi patron de presse la looloo am loo tax dafay film moom Assane Ndiaye wóor buum xoolal li ay mbayang lu ma moom am kenn du mbayang ndeysaan ay nomba wan déggal li Mbayang c'est le roi wala noonu yaara waa c'est la la dama juum waay ah. pël bàyyil tooñ <laughs> tooñ c'est la reine c'est la reine de l'arène neex booba li man ta yomb metti Franc booy fay mu neex Maroc ak États-Unis Maroc États-Unis drapeau Matar Ba ministre des sports ak disponible mu ngi koy dajale de mu ngi koy dajale de dajale de booy fay booy may loolu baba booy fay ñu dajale mu ngay yootu tànk booy fay ñu ngi lay dajale bu ñu soso bu ñu tegantey wax baaxul lay dajale da koy botti daan na ko de wala waxoon dina ko daan eto eto na ko takk na ko waaw même li ma jaaxal Boy Faye mi la muy maye daa bari dafa war a bàyyi maye bëri keeru ci gan ci maye Boy Faye maye rek la ma baaxul dafa sori su ko may mboot ma dafa sori Boy Faye dañ koy daan de Boy Faye lii dalul xel de da koy 16 boo tagalee da koy tegal 16 walaay wax nga dëgg xoolal la ñuy def doo dof bu sigee mu tegal

Matar Balaye déggal li ay fu ñu jëm ci gone eh Mbayang Loum borom bin Farba kenn du Mbayang jigéen nuyu naa la Pape Ndiaye Cédric Marcelin Ndour David Lewis Baye Sall eh Coppay ñu ngi di nuyu xoolal la muy may xool la muy maye xool la muy def. da koy kenn du ko may. da koy takk Franc daa mën a bëree. da koy takk Franc bëree kat la biram. da koy takk a bëree. mais Boy nga xool li ngay def Boy fay Boy Faye il est la Boy li ngay def. il est en train de haha. il est de donner le ah, terrasser. moom kenn du ko jox Franc. loolu wóorul da koo bëgg boot bañ na da koo bëgg boot mu bañ mbokki Leewtoo TV fii ci Leewtoo Babacar la ak Birame tey final Franc Boy Faye 6 millions drapeau Matar Ba atena arbitre ay bi final ah, ah, ci de d'accorduñu ci de. amateur yi d'accorduñu lu xew. temps bee jeex. round d'observation. waaw ndeysaan biram. dañu dem xooli i nit ñëwaat. dana ñëw ci final poids léger yi ñoom ñaar ñoo ko jël. arbitre dem na ko soufflé naa. waaw ndeysaan Franc am na avertissement wala boog Boy am avertissement. Boy Faye am na benn. mi-temps nañ ba ñëwaat. Franc ak Boy Faye. Franc à droite Boy Faye à gauche tey. Boy Faye xam nga la muy fooy ci bëre bi. doomi Pikine ak doomi Parcelles. buñ ko avertir par passivité bu temps bi jeexee leneen la la ba Boy Faye ak Franc. waaw ndeysaan pour gërëm. ku la nuyu naa la. ñoo nuyu. Saalum damay rëb borom si gàttal eh, nañu. Saalum nañu. Eh, eh Boy Faye nooy def lii. mais Boy Faye jàppul. war na ko ndombo. war na ko ndombo. war na ko ndombo. wala Boy Faye doo ah, génn ci lii. ah da ngay daanu. ah ah. jaaxal na ma. eh waay mborom Ñaami. laa ilaaha illallah. spectacle. waaye mbar day rakkaaju waay. waa li seet bi. Youssou Ndour nekk na yow rek a eh, bi. moom moo tuddati nan. Papa Ndiaye. wala Mamou Zidane la wala kan. moom moo daan Ama bu Ngunjaan la daan final. wax nga dëgg Ama. Ama bu Ngunjaan. moom la daan final ana waa Ngunjaan. waa Mbour waay. waa Càngaay. lépp ci Ngunjaan. du mën a ñàkk. waaye. waa Ndondol. waa Ndondol. waa Mbomboy. waa Mbomboy. waa Gat. waa Talle. waa Ndiambane mbel xawul mbel xawul combat bee de nuyu naa ñëpp laa ilaaha illallaah combat mbay séréer dëkkam ndaat waaw waaw nuyu naa fay ma dem ñing dëgg la Babacar yaayu maam Cheikh Ibra Fall nuyu naa Taneng du mën a ñàkk boo ko làkkee séréer mu dégg la Taneng ah waay Taneng waay sim naa ngong waay ndeysaan sim naa naam wen mbin ne bopp Taneng eh du mën a ñàkk ina meegel en sa jam Mar Diop waaye na gaaw waay ba tër ngay signalé de final ne diggante Franc fo Babacar a ah, Namro arbitre siffla avertissement Boy Faye ah attention am na luy xeeñ Boy am na benn affaire ñaari avertissement benn ko dese am na ñaar benn ko dese su bi jeexee nii day ñàkk te buñ ko avertir ñetteel avertissement day ñàkk combat bi day jeex oh, day jeex kon Boy Faye xarul bëre ah. am jël moo fi sës ah lay xeeñ neexul déedéet Franc léegi day gérer combat am déggante na ñuy bopp ay Fall. Fall borom Moussa Fall. Fall filmal. ndeysaan. Fall looy liyaar. Fala ah, xanaa mënoo wax Fall. jàppal ci lii en attendant Fall. Fall lu la dal. Fall ngay liyaar. lu xew. yow mi tee ngaa toog. waa Bodi la. waa Bodi Obama. waa Bodi lu mu. Eh, waay. ndeysaan. waay mbayang waay. ay la muy wax ay mbayang. kii Bodi RFM la. Bodi. eh eh jàpp nañu Bodi. jàpp nañu Bodi jëlal lii Bodi nañu Bodi Fall. génn nañu Bodi làmb ja Aline Gueye. Aline Gueye na ko. xol ba tàng rek. capté nañ ko na Bodi. waaye nan dem ca combat nun ndeysaan Aline Gueye ko capté. capté nañu Bodi RFM. body Obama capté nañ la. body Obama. ngooñ ngooñ daa doon fecc rek deful dara. Babacar lu neex rek la doon def ndeysaan. lu neex rek la doon def. muy day animé. waaye xool nañ jëf buddi yow xool. xool nañ jëf ah, waay waay lii ay waay lii rafetul waay. lii rafetul de. déedéet lii rafetul waay daa doon fecc rek ah, deful dara. Ah, dañ koo meeb. deful benn delli bi mbaa du booy fay day ñàkk de. waaw waaw Franc jëlaat na ko. Fara jël na ko. avertissement avertissement la ko gagné. bëre ba final. waaw nga ñàkk par avertissement. dëgg la waaw di sant yàlla rek. di jundiwaat ci yeneen bi di sant suma ñaari waajur. di gërëm yàlla bu baax. di wax ni jaam ak pexem yàlla ak dogalam. ndam ndam lañ bëggoon. non du sot wee ndam lañ bëggoon. mais ni la yàlla dogalee ñu nangu ko rek. di wax suma papa yal na suuf sedd ci kawam. suma yaay damay dëkk ci di ko yërëm. di ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne mënu moom moo mën lépp mu dimbali ma suma yaay dox loolu laay ñaan yàlla ci àdduna man sama honneur ci àdduna mooy suma yaay ji nekk kër ga dox mooy li ma gën a neex ci àdduna loolu laay ñaan yàlla di wax nag naa supporters yi man mu ma leen fay su ma sañoon chaque si ci bëggal leen laay dëkk mais nag ndam décision sunu borom la ñu la ko yàlla tuddee ñu ngi sant ñu ngi sant yàlla dëgg la mais dëgg la verbal avec mais loolu moom. xam nga dañ ne arbitre la méditerranée amul benn problème dañuy dem ñëwaat defaat leneen rek ci kattanu suñu borom. jaajëf mu ngi muy Boy Faye.